rahim alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlaana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen jaara te jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidil Muxtaar mi fi toog toogaayu Cheikhul Xadim ñuy ñaan suñu borom sàmm ko di ñaanal njabootu sëñ tubaab gi yëpp ak mbooleem jullit yi ak fuñ fi mën di nekk di rafet lu bu baax tey nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi eh, seetaan télévision Mafatihul Bichri muy Bichri TV ak fuñ fi mën di nekk di nuyu la nuyu yow itam soxna Jamilatu Jaxate ak sëriñ Gora Murit ñu ngeen àndal di nuyu ñëpp rek di rafetlu itam liggéey bii ngeen bëgg a ànd ak ñun lépp jëm ci waajtaayu bisub Serigne Touba bi bisu màggal bi jërëjëf sëriñ Abdou salaam Dieng mu mel ni kii am na solo trop ndax nuyoo na nuyoo bu am solo mu mel ni ki dañuy dugg rek ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi jëmale ko ci wàccaayu màggal bi Euh, li ñu war a waxtaan rek moo di ak euh, shukru moom moo di ak euh, sant ndax borom bi subhaanahu wa taala moo wax ne na ngeen ma sant man yàlla waaye itam na ngeen ma ñaan man yàlla mu may leen mu mel ni rek ñu bëgg a waxtaane li nga xam ne moom moo di cant wax naa leen thème bi mooy xidmatul xadim fi zikri wa shukri waaye nag li ñu war a waxtaane moom moo di a shukru kon ñu bëggoon a xam itam sëriñ bi ma makaanatu zikri fi islaam ban wàccuwaay wala ban place la islaam jox li di ak sant yàlla waa kay Euh, makkanatu zikr fi lislaam makkaana bu kawe la mooy sax akbaru makkaana ci lislaam ndax li ko waral gis nga ne alquran mi sax ay turam bokk na zikr ni ñu ko waxe woon ne inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizun kon suñu borom da koy wooyee zikr foofu di ko wooyee alquran muy loo xam ne itam ku delluwaat ci biir alquran da nga ci fekk aay yu bari yoo xam ne suñu borom daf say leeral lu jëm ci wàllu tudd ko ni mu ko amale solo nga xam ne soññewu si rek yam si waaye da koo digle da koo digle moo tax mu ne wazkurullaha zikran kasira mu ne na ngeen di tudd yàlla tudd gu bari kon loolu moo ko digle yonent bi tam waxoon na sa làmmiñ na sax sàpp ak tudd yàlla foofu fekk ab julit aw làmmiñam daa wartoo xipp ak di tudd yàlla boo demaatee ci biir alxuraan mu ne fazkuruni azkurukum bu ngeen ma dee fàttaliku man itam ma leen di fàttaliku donte suñu borom du koy fàtte waaye nag ku jëflanteek moom euh, jëfi fàtte it moom mu jëflante yow jëfi kuy fàtte loolu moo tax mu bëgg lool ab jullit di ko fàttaliku te waxoon na itam ne saa boo xamee ne ab jaam fàttaliku na ma ci kaw suuf danaa ko fàttaliku ci mbooloo mu ko gën muy kaw da koy fàttalikoo sa kaw mala ulan la kon kon euh, mel na ne makkaana bu am solo la bu njëkkee sëñ Tuubaa mi nga xam ne itam moo santaane màggal gi te bi muy santaane màggal gi mu wax ni mu ko bëggee ndax daa wax ne nañ ko sant la yàlla sant gi nag mu séddale ko ci lenn li jëm ci bernde li si des itam jëm ci tudd yàlla ak e, lépp luy waree rek ne kii ab jullit mi ngi sant boo demee si biir yi ay mbindam mi ngi siy wax ne mboolem lu am murid di def di sa wut yàlla rek dara gënu saare yi di si tudd yàlla di fàttaliku yàlla moo tax mu ne amma dawaamu zikri fa huwa akbar min kulli ma kaana muridu yuksir nee lépp loo gis ne am murid war na koy bari di sonn loola dara gënu saa rëy soxoo di tudd yàlla ak di ko fàttaliku mu ne li ma wax nag bu la jaaxale it man sa kaw laa koy wax du ma si dellu gannaaw xat qultu zalika bila israari wala ubali bi zawil ku si am weneen gisi nit du teeman foofu mooy sama taxawaay te ne itam wa kullu man saalani fali jawaab qabla wala tujaadilu ahlal kitaab ne képp koo xamee ne si itam laaj na ma waaw lu tax nga wax ne tudd yàlla moo gën a rëy moo gën a war a ëpp si lu am amul di baril moo gën a rëy lépp nee na sama tontu mooy dama lay delloo ci biir alquran nee la delluwaatul si téere bi soo demee ci euh, wala lu la ko jiitu baat ba ko jiitu wa dafa wax ne wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a rëy wax na fa yu baree bari waaye da koo daaneel ne loolu yëpp li ñuy rëy rëy tudd yàlla moo ko gën a rëy te ku tudd yàlla yi daa ngi tudd leneen te yaakaar naa euh, aw làmmiñ bokk na ci li mën a indi nit réccu ëllëg kon fexe ba saw làmmiñ nag di la jural ay tuyaaba dara gënu saa rëy tudd yàlla ndax mooy fàttaliku yàlla xam lim la sant xam la lay xaar sa digg ak moom lépp loolu lépp dafa fekk dafa bokk ci tudd yàlla Eh, jërëjëf sëriñ Abdou Salam mel ni kii am na solo torop ci leeral gi nga xam ne leeral na ko eh, tudd yàlla eh, place bi nga xam ne moom la ko lislaam jox wax nga na inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafisuun mu nekk loo xam ne itam ñëw na ci sax alquraanu karim am na solo trop ñu bëggoon a xam itam maanaam ñaata xeeti sant yàlla wala ñaata xaaji sant yàlla ñoom ñoo am ñu bëggoon itam nga laal ñu itam ci ngëne yi nga xam ne ak tudd yàlla am na ko. ok tudd yàlla moom mënees na koo def ci anam yu wuute moom tanawaat lu bari ay banqaas la waaye bi si gën a rëy rek te gën saa màgg mooy alquran ji ñu waxoon kon lu nit di tudde yàlla dara gënu saara yi di jàng alquran des na itam tuddee yàlla ci ay baat yoo xam ne alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ne moo ñuy jàngal ni ñuy jàmmoo yàlla moo ñu koy jàngal moom léeg-léeg mu jël ay baat daan si tudd yàlla lu mel ne subhaanallahi wa bihamdihi des na si tudd yàlla alhamdulilahi des na si tudd yàlla allahu akbar astaghfirullah la ilaha illa allah ak salaatu ala nabi yooyu yëpp ay tudd yàlla la yooyu nag ku gis ñun ñi nga xam ne dañoo yaakaar Sëriñ Tuubaa itam mu defal ñu si ab liggéey boo xam ne noppal nañu sa lool te yàlla nañu ko yàlla fayal ca loola ndax li ëpp sa la nga doon wuti ci tur yooyu dala koo dajaleel ci xaside yi nga xam ne boo dee jàng xasidaam yi yaa ngi tudd yàlla yaa ngi tagg yàlla yaa ngi sant yàlla loolu yëpp mu dagale ko ci kon tudd yàlla mënees na ko def ci jàng alquran mënees na koo jël ci wenn tut si wenn tut ci turam yi di ko ko tuddee di ko si woo waaye mënees na koy sant mënees na koy jéggulu te loolu lépp day dellu ci tudd yàlla kon lu yaatu la lef lefu yaatoo yaatu la tudd yàlla séddalikoo ci baat yooyu ma la wax itam waxoon na lu jëm si ngëneel yi nga ne tudd yàlla it euh, gannaaw loo xam ne boo tuddee yàlla yàlla lay tudd nga fàttaliku ko mu di la mu di la fàttaliku yaakaar naa na loolu dara gënu koo màgg tey tam sëñ bi wax na ne tudd yàlla bokk na ci ngëneelam rek wa annahu bidayatul wilaaya képp koo xam ne danga bëgg am ak pal sa digg ak sa boroom sa boroom di doon sa kilifa nee na faw nga di ko tudd xam nga suñu borom moo bind lépp waaye teewut am na ñu tànn nag wax ne maay seen kilifa ni mu waxee ne zalika bi anna allaha mawla alladina amanu waaye wa anna al kafirina la mawla lahum wax ne yàlla mooy kilifa ñi nangoo gëm waaye ñi nanguwut a gëm nee na ak ñoom wàllu kilifteef donte moo leen bind moom leen itam te muy yéefar yi noonu itam lay beral loxo ci biir ñim gëm ñi ko ëpp lu ñu koy tudd ñooñu lay gën a beral loxo ci lépp lu muy joxe ak lu muy maye ci wàllu fal ak ak ak ak lu mel noonu sëñ bi itam loolu wax ne wa tarkuhu nihayatul xawaaya kon bàyyi tudd yàlla ku ko def rek mel na ne bu fekkonte ne ak réer ak ak mbewte day ak garab yow yéeg nga ba sa cat la mooy fa fa fa fa fa njobaxtal la foofu nga fa foofu nga yam kon ñàkk tudd yàlla rek day tegtale ne nit ki ku sori suñu borom la kon loolu euh, day tax ñu xam njëriñal tudd yàlla tudd yàlla itam ni ñu ko waxe woon ci aqsaam yi ci xaaj yi boo ñëwee ci alquran jooju ñuy wax yonent bi alayhi salaatu ne woon na képp ku wax ne alif laam miim duñ jël alif gi rek fay duñ ko boole fayandoo la ko ay tuyaaba waaye dañ koy xajale dañuy fay alif gi fay laam gi fay miim gi te benn bu ci ne suñu borom lu mu néew néew dana la fay fukk te yemut ak yow foofu noo ko sell la rek noonu la tuyaaba ji gën a bari kon kenn ku ne xam na alquran kon jàng ko la sa nekk jàng alquran itam gis nga bu baax ni ko sëñ Tuubaa fonke woon ak itam ni mu si soññee ci waxtu wu nekk ab taalibe di ko jàng ba joxe ndigal sax ne képp koo xam ne danga nga koo yaakaar nañ saxal di jàng alxuraan doonte ñetti isib la kon loolu rek day tegtale euh, njëriñ lu mu am ndax moom lépp lu am njëriñ lay digle lu amul njëriñ du wax jëm sax boo ñëwee itam ci yeneen euh, yiñ koy tudde mu yeneen baat yi si boo ñëwee ci am mbindam danga fekk mu la say wax ay baat yoo xam ne dalay wax ay njëriñam te loo lu mel ne baatu euh, la ilaha illallah mi ngi la ci wax ay njëriñ yu bare bari nee na euh, mboolem lu nit di wax ñaar wax looloo si gën te képp koo xamee ne wax na ko to fas ko mooy nga mooy la maanaa yee tekki nga jàpp ko nee na loola ak payam la sa gën a néew mooy nga am àjjana suñu borom moo tax mu ne fa kullu man mu zakaraha mutaqidan madmunaha daxala jannatan xadda képp koo xamee ne wax nga laa ilaha illallah jooju muhammadun rasulullah te fas ko te fas gi mooy nga xam ne yàlla dong lañ war a jaamu mu amal njëriñ ki koy jaamu ñàkk gaa jaamu di lool ku ko jaamuwut nee na loolu ku ko xamee noonu te fas ko noonu wax ko noonu su borom boo mu tàbbal la àjjana nee na itam war na laa doy rek ci loo xam ne dañ naan la mooy njëgu àjjana xasbuka fiha annaha tudaa samana jannati rabbina li dafiha fitan nee na sunu borom euh, doy na la ci tudd yàlla ne moom mooy njëgu àjjana sunu borom kon lépp loo xam ne da lay mën a may àjjana soxna si loolu am yi nga ngëneel waaye tam dana la aar tudd yàlla day aar nit ki moo tax mu ne wa annaha tudaa bi xisnillahi fal haj bi zikrihi bila tanaahi kon tudd yàlla muy tudd laa ilaha illa muhammadu rasulullah da lay aar ci lépp loo xam ne ay gàllankoor la ak i musiba boo jëlee itam ñàkk ko tudd itam di musiba ndax xasbuka aydan anna man la yazkur amdan biha fa innahu la yu'zar képp koo xamee ne amu benn ngànt eh, képp koo xam ne nangoo tudd laa ilaha illallah ngant loo man di joxee duñ ko nangu kon duñ la nangul dara ci lislaam bala ngaa sañ def dara dañ laan la wax ko ba noppi te gëm ko waaw bal xay suma sax an zikriha yaaba abad fa innahu yuqtalu kufran duna xadd nee na yemuñu si sax di la bañ a nangul sa ngant waaye su fekkente ne nangu woo dellu gannaaw ci bañ gee tudd dañuy jël sa bakkan mooy kon dañ laa war a rey te buñ la xisee rey duñ la jàppee ab yéef du ab ab julit waaye dañ lay jàppee ab yéefar nga xam ne la defal yéefar rek lañ lay defal duñ la suul si biir julli ñi duñ la sàng duñ la jullee ak yu mel noonu kon gis nga loo xam ne boo ko waxut mu man laa génnee ci diine soo ko waxut ñu sañ la saaray tuur sa deret kon loolu wax ko lu am njëriñ la naka noonu tam boo ñëwee ci biir téere bi mu ngi wax yeneen baat yi baat bu nekk njëriñ jam am wax na basmala muy bismillahi rahmaani rahim wax na laa hawla wala quwata illa billahi al ali al azim wax na njëriñal takbir mooy allahu wax na aouzu billahi wax na alhamdulilah wax na salaatu ala nabi xasbunallahu wa ni'mal wakil yooyu yëpp benn lu ci nekk indil na la ay njëriñ yoo xam ne eh, benn bu ci ne boo ko sonnee danga sa gis la mi la nga sa mën a góobe moo tax si gàttal mu ne la wal kullu minhunna laha asraaru kastafaha fi suhubil axbaar lenn lu nekk ci yooyu ma la wax am na ay mbóot yoo xam ne borom téere yi doon taalif jotoon nañ saa wax lu baree bari mu mu lay leeral nag mu ne fa samaru taxliili tawxidun sama lil aarifina qaalahu man alima bu dee da ngay wax laa ilaha illallah nee na la nga say amee mooy da ngay am tawxid tawxid nag mooy li nga xam ne kenn mun koo ñàkk ndax lu waay ñàkk tam am tawxid ëllëg loola tawxid mën naa jagal loola waaye nit bu xisee ñàkk tawxid leneen lu mu amit loolu du mën a yóbbaale tawxid kon tawxid mooy xam yàlla ak teg yàlla palaasam te loolu leen di tudd baat dala koy tax a am boo dee wax allahu ak alhamdulilahi ak di sant yàlla loolu itam da ngay mujj am yaakaar ju dëgër sëriñ ak sa boroom te da ngay mujj sopp lool yàlla te koo képp koo gis muy sopp rek bu yàggaay day rafetal moo tax mu ne euh, samru samaru takbirin wa hamdin qad jala taasimuhu wa shukuruhu jalla ala wa quwatu rajai wa tahbibu fa inna kulla muhsinin mahbubu kon na na loolu nga say daal di bu dee laa xawla wala quwata ak xasbunallahu da ngay mujj doon koo xam da ngay wér say mbir si yàlla gis ne yàlla dong moo la mën a jëriñ moo la mën a lor sa njëriñ ak sa lor lépp dootoo ko séentu si kulut yàlla mel la bind te loolu day dëgëral ba tey tawxiidu nit ki bu dee julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam nee na boo ko dee def day dolli sa cofeel si digg ak yonent bi ak it di dolli nga nangoo topp sunna te itam sax du yem si loolu waaye da ngay jëriñu da ngay bokk si ñi nga xam ne faw da ngay jëriñu fii ak fale nee na itam astaghfirullaha boo ko dee wax tëj ni istiqaamatan ala taqwa abad da ngay mujj am istiqaama mooy sax ci li yàlla digle boola kook ragal ko lool kon yooyu yëpp ah ay njëriñ la mu tënki ko ne nag waaye lakin hada kulluhu majmuun fi zikrin fi zikri fardin qaalahu lmatbuu nee na lii ma la doon wax yëpp yi muy am am njëriñ muy baat yooyu soo yemoon ci laa ilaha illa allah muhammadun rasulullahi rek ëmb ko moo tax mu ne wax wa laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawlaahu salla alayhi laahu summa sallama wa alihi wa sahbihi wa karama kon loolu lépp mi ngi koy wax ci e, njëriñ yi yenn ci baat yi xam naa kon njëriñ yu gudd na waaye mën nañoo taxalu foofu suñu nopp ba ci kanam ñu eggale yeneen baat yi nga xam ne da koo jël benn par benn ngir kiy déglu itam mën a gën a nopp bu baax jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan kon ñu ngi woon ak ki nga xam ne moo di Serigne Abdou Salam Dieng ñu àndoon moom ci wàccaayu màggal yu am solo yi nga xam ne ñu ngi leen koy amala fii ci télévision Mafatihul Bichri suñu tem nag nekkoon xidmatul xadim fi zikri wa shukri waaye moom yaakaar naa ne wax na ci zikri lu am solo mu di tudd yàlla wax na ci itam lu am solo wax na ci jëriñu laa ilaha illallah sidna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax njëriñu bisimilahi rahmaani rahim wax njëriñu salaatu ala nabi mel ni dugg na ci ngëneel yi bu baax a baax kon euh, sëriñ Abdou balaa ñu lay bàyyi rek euh, lan mooy sa kàddu yu mujj yi nga xam ne danga koy joxe dénk ko ay dénkaan yoo xam ne da koy dénk ñi nga xam ne dañoo war a màggal si wala ñi nga xam ne itam ñoom lañ fi fekk si fii si Touba euh, di amal loolu nga xam ne moom moo di sant borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul moo ko waxoon nañ ko ko sant la yàlla. waaw Kumba soxna si loolu nga mujjante la am na solo lool ndax fi mu ne nii ku ne xam na ne suñu digg ak màggal la si des bëriwul kon yittee mu yëpp. ak kuy wax ak murid yi wala leen a wax lu jëm ci loolu te màggal day loo xam ne ah, murid bu nekk war na ko xoolaat bu baax ndax day ndigalal Sëriñ Tuubaa muy benn te ab taalibe bu ne yaakaar naa ne la muy xante woo mooy mu xam ne lii muy def am na ci ndigal kon màggal digalal Sëriñ Tuubaa la ci lu leer li koy gën di firndeel rek mooy ba ko sëñ Fallou wootee ba léegi bépp xalifam bu fi toog te toog ab toogaayam saa bu weer wi teroo si fan yu njëkk yi rek dañ dégg mu mu xam ne xam na ne ñëpp kenn benn murid du ko fàtte waaye teewut fonk gu mu fonk bis bi ak barkeelu gu muy barkeelu si woote gi ko Sëñ Tuubaa santaane gi ko Sëñ Tuubaa santaane moo tax ñu di ko yeesalaat tàmbalee ko si sëñ sëñ sëñ Mouhamadou Fadal mi ko woote woon yal na ko yàlla fay ci woote gi mu ko woote mu jëriñ dëkk bi lool ndax tax nañu baree bari màggal si leen fi daan tax ñëw waaye mujj nañu wut fii kër mbokk yu bari di fi xame ah, ñu fi bari di fi amee seeni njëriñ ba li alxuraan doon wax ci ajug màkk ne li yashhadu manafia lahum ndajale moo xam ne dañ say jaamu yàlla waaye dañ say amee ay njëriñ it loolu mel na ne yàlla ah, feeñal na ko si màggal gi muy kenn ku fi ñëw danga ci ñu si bari ñu ngi fiy gis ay njëriñ ñu fi amee kon loolu rek day tegtale ne ndigalal Sëñ Tuubaa la kon ndigal di rek si lay ñëw kon muy lu wér ne ndigal la ndigal nag di lu am solo rawatina ci taalibe te ndigal nañu xam ne sëñ Tuubaa mi ko digle waxoon na leen ndigal si ñett lay bàyyi koo daa waxoon ne ndigal dana jóge si aarif billah dana jóge si aalim dana jóge si jaahil kenn ku nekk nag mu wax la nang say def nee na bu dee aarif billahi lu mu la digal góor góorgóorlu defal góor góorgóorlu def ko ndax moom mi la koy digal jëriñu na ba noppi yow la bëgg nga jëriñu nee na it bu dee aalim la lu la digal mën nga koo def ndax daa bëgg boo ko defee moom mu am ci tuyaaba yi ku digle lu baax xam nga nit bu diglee lu baax ku ko def yéen ñaar ñëpp lañ leen di bokk fay kon moom dana sa am njëriñ waaye yow mi mu digal lu baax nga def koy dana si njëriñ mu ne ab jaahil nag moom mooy koo xam ne lu la digal xool ko bu baax ndax léeg la ëpp ca la tax muy digle njëriñal boppam dong lay lal kon moom yee nañu bu baax ci loolu digal lii nag kan boo ko jëlee danga xam ne ci aarif billaahi la jógee muy Sëñ Tuubaa kon moom jëriñu na ba noppi ñun rek la bëgg ñu jëriñu si te itam muy loo xam ne nañu xool waxtu bi ñu ko diglee bi tukki bi mooy bi ko tubaab yi di fitnaal duñ ko fii jëlee di ko yóbbu ci liggéey bi booba diglewul ne nañ ñëw xeexle ko diglewul ne nañ ñëw jàppale ko coono bi yëpp moo ko yanoon ñu ko suñ Abdoulaye lu waxee ba yàlla def te màggal gi dafa am na suñu borom doon jëflante teeg moom xaw ma nit ñi bàyyi nañ ko xelam déet day def suñu Abdoulaye daa wax ne fu ko bis mas fekk si kaw suuf bërëb bu man di ne dañ ko fay àndal yóbbu ko feneen fitna juñ ko tegoon dañ koy yeesalaat yokkaat ko kon màggal gi da daan bis boo xam ne dañ ci daan dolli Sëñ Tuubaa ay fitna di ko ci dolli ay nattu bam bi mu ñëwee ci jaareem nag moom at moo xam ne mi ngi waaj a tegoo waa natt yooyu fas ko di ko waajalaat di séntu ne rek bu ñëwee day gën a tarati sala ko nag suñu boroom dikkal yónni yonent bi alayhi salaatu salaam mu xamal ko nag na ko mbooleem nag li nga xam ne moo doon euh, nattu yi ak tiis yi yëpp jeex na li dale tey jii bu baax dinay tukki ak pay rek moo ci des ak sant ak ak di la dolli liñ jóge woon ak yow di la ko fay si bis bi saa bu bisu màggal dikkatee dañ koy ful loola nag doxal na ko sax ci biiram ay ab diir waaye daa mujj nag ne sama cantu bopp lott na ci xeeb naa ko ci kon daal di digle wax ne képp koo xamee ne sa mbëg ci sama mbëg la aju rek sant naa la saa bu bis bi dikkatee si kaw suuf ak fu mu la mën di fekk nag ma si sant la yàlla kon nag waxoon na sax na li dalee ci ganaar ba ci gëléem bu ci waay xeeb lenn bu ci waay naw lenn kon moom moo ko santaane tey itam wax na ne daa bëgg ñu jàppale ko ci wax donte moom ak cantam mën naa la lépp waaye rek dañ ciy dégg ne ñun la bëgg a jëriñ waaye teewul waxee na waxin woo xam ne day mel ne soxla nañu jàppale ko ci tam bu la gënoon a jafe ci liggéey bi lépp moo ko yanu àndut kenn jàppale ko ci àndutoon ak kenn ci géej gi kon loolu rek day tegtale ne bu fekkente ne jaayante gi ñu jaayanteeg moom Euh, ñu ngi koy yeesal di ko fàttaliku di ko bàyyi xel su bis bi dikkee war nañ see wane suñu yéene bu baax a baax kon loolu day day tegtale ne mu yëpp ko war a bokk mu amaatit loo xam ne nañ ko xool xam nga fi nii boo xoolee dañ koy joxe misaal ci waxuñu ne dafa yem ak aj màkk déedéet waxuñu loolu aj màkk farata la yàllaa ko digle waaw lii ndigalal sëñ Tuubaa loo xam ne képp ko yaakaar la wax ñun jàpp nañ ne yàlla mën nañ see defal lañ si sëñ Tuubaa dal lépp gëm nañ ñun ñi ko ñu aju si moom ne mën nañ ko see amee du tax nag mukk ñu jàppe ko ab ponk ci diine waaye nag ndigalal la lu sëñ Tuubaa digle ku ko yaakaar war saa mën a jaar loola nag moo tax may joxe misaal rek ndax misaal dañoo wax ne al misaal tuqarribul baid waaw day jegeel loo xam ne dafa sori woon da ngay jël dara di ko leerale dara ngir kiy dégg mën a xam boo gisee may bëgg a wax lii jàppal ne buñ ne aji màkka ki aji ka dëkk sa dëkk ba ak ka jóge fii ak fu waay mën di jóge dagg paas su ngeen demee yaakaar naa du jëmmi dagg paas rek dem màkk rek ka ki ki ki ki ki dëkkul màkka loolu lañ ko sant bu demee mboole manasik yañ ko fay def loo kay aj moo ko fa war na ko ka dëkk màkk ware ñu tolloo sax doo sa xàmmee ku dëkk màkk ak ko dëkkut ñoom ñëpp ñu maase si jaamu yàlla boo muy jeex kon digal lii itam sëñ Tuubaa waxutoon ne Euh, na ko ñi dëkk Touba rek di màggal bàyyi ñeneen ñi ci des kon day mel ne foofu am na ñu bari ñoo xam ne bàyyiwuñ fi xel jàpp nañu ñoom bu ñu xesee dagg paas ba agsi si màggal bi rek dëkk bi rek léegi seen jaan wàcc na màggal si nañ déedéet la euh, la la la la kay nekk Touba di def loolu la ko nekk feneen war a def muy sëñ Touba moo santaane lañ ko sant la yàlla ñu am tawféex si bi ko sëñ Fallou wootee ñëpp di ko fi daje mu doon ndimbal loo xam ne far dana gën a yombal bis bi si ñun ñu am si ay njëriñ yooyu ma la doon wax yu bare bare xamante gi am fi mbokk gi am fi ñu ñu mën a berdente mën a santante yàlla kon loolu di tawfeex waaye nag loola teggilul kenn nag dagg paas ba rek teggilul kenn ne nag loola kon day tax ba yow ah waroo nag boo ñëwee def li nit ñiy def kon kenn ku ci ne eh, foo mën di jógee lu mu sori sori xamal ne Sëñ Tuubaa moo ne woon koo xam ne sa bég sama bég la fu la bis mën di fekk saa bu ñëwee bu nag ma sant la yàlla te sant la yàlla nga waxoon na nañ koy defee ne woon na dala si ganaar ba si gëléem kon loolu maa ngi koy fàttali ko maa ngi koy fàttali ñi nga xam ne ñooy ñëw ñi fi dëkk itam am nañ taw feexu gannaaw ñoom ñoo dëkk ak sëñ tubaa dëkk donte ñëpp dëkk ak sëñ tubaa waaye ñoom ñoo dëkk si dëkk bi euh, di dalal gani sëñ yi ñoom itam xam ne ñoom loolu seen taw feexa ba lépp lu si war ci teral gan lépp lu si war ci dundal bis bi kon ñoo xam ne ñoom bu ko ñëpp defee ñoom la gën a war bu ko ñëpp defi tut ñoom la gën a war kon yàlla message boobu laay yóbbante ñëpp ñu xam ne eh, kon di tàggutoo ci sant leen bu baax rek tey ñaan télévision bii nga xam ne yéen a ngi ci nekk mu jëm kanam bu baax li ngeen ci yéene yëpp itam yàlla def ko message bi itam jàll ci bu baax ku ci gis samay wax nag loo xam ne bokkut ak lu ñu war a wax muy ay njuumte nga jéggal ñu ko bu baax te xam ne yéene rek lañ amoon wa ma uridu ilal islah léegi nag lu ci waay gis ci lu baax mu sant ko yàlla xam ne wa maa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu euh, jërëjëf sëriñ Abdou Salam Dieng euh, mu mel ni kii am na solo bu baax a baax macha allah comme nañu leen ko waxee rek ñu ngi woon ci émission wàccaayu màggal te ñu ci ànd ak yéen euh, at mu nekk ñu daloon tey sëriñ Abdou salaam Dieng di waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom moo di zikri maanaam tudd yàlla nda wax naa leen thème bi mooy xidmatul xadim fi zikri wa sukri kon mu mel ni ki moom it wax na lu am solo ci tudd yàlla te itam indi na ngëneel yi nga xam ne moom la tudd yàlla am euh, kon mu mel ni ki ñu ngi koy sant bu baax a baax di la jaajëfal kon nii lañ fas yéenee ànd ak yéen rek ci li nga xam ne moom moo di wàccaayu màggal yi ci benn fanu safar ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di sant bu baax ki ñu àndaloon ci wàllu caméra bi mu di Serigne Gora Murit ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal xam naa di leen jox dig daje ci yeneen émission wàccaayu màggal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaam